bisimilah barke bon Touba ñu ngi ziaraan mbokk taal bi yëpp euh, ñu ngi fii ci waa ahlu hygiène euh, di waa fondation Sopp Serigne Saliou euh, nga xam ci jëriñu liggéey bi ci ñoom la teg liggéey hygiène bi du jëm ci ci douche yi toilette yi ci jàppukaay yi ci satala yi ci lépp nga xam ci mbokk bi nga xam ci la ñuy ñëw ñuy am fu ñuy mën a yeesloo muy set di jàppandi ci mbokk taal bi yëpp. ci côté gorialay ak ci soxna yépp gis nañ ni yéen a ngi ci woon ci liggéey bi ci wàccaay yi depuis bobu ci raxas la yoy nan ngeen taxo liggéey bi seen. waaw salaamaaleykum. wala أذن wala جون wala قرب ولا حد ولا بغاض بخدمة أو بقلب أو هديات ما لي باخ دي ziar دي ziar جير ci fallu am mbolam mi nga xamanteni mom ngeen andal ci audio bi ziar comme neer ko ziar rek ni bu sa passe de touba ngay nga xamanteni da nek bis bu mag mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki àdduna bi ñëpp bu ko wàcc ba ëssi si cëppaay cëppaandaw bi kon loolu nekk la loo xam ne suñu lii lu rëy la kon ak sant yàlla la bu ko defee rek liggéey bi noonu la demee kenn ku ne benn pàcc yàlla dogal nag M3S fondation Soppe Serigne Saliou John Ngaye ñoom da leen dénk liggéey hygiène bi wàllum set géeg yëpp demee si duur yeeg maanaam lépp loo xam ne si maanaam wàllum set la ñu féete foofu noonu di sant yàlla bu baax a baax a baax mboolem jëwriñ ñi nga xamante ni moom la jiite ñi nga xamante ni mooy liggéey bi comme ni ngeen ko gisee rek ñu fi ànd ak mbokk taalibe yi saalixaat yi ak saalix yi ñëpp rek lépp loo xamante ne nii maanaam day day waral set bi lépp loo xamante ne nit ki bu ñëwee mën na ko aajoo si wàllum set bi loolu ñoo ci ñu ci taxaw ci liggéey liggéey boo xam ci liggéey bi mu ci ayib la di ànd ak yow jëriñ taxawaay bi gis nañ ko macha allah am mboolem ñoo xamante ne nii fépp koo xamante ni boo si jàppee liggéey bi dox rek loolu ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax a baax kon loolu daal ñu ngi ci liggéey bi di am ak sant mu nekk bisu mbégte bis bu màgg pour seen mbooloo mi seen mbokki taalibe yi nga xam ne bis bi am na tawfeex bisu Sëriñ Tuubaa la bis bu màgg la mi bisu xasida yi ndax bis bi amul bis boo gën sant bu baax a baax mbooleem F3S fondation Soxna Sëriñ Saliou ci liggéey bi